d'accueillir accueillir gens ci salle d'attente comme vous êtes un peu nombreux donc euh, maître Diarra le maître Kan monsieur le juge maître Kan de me confier dossier bah, d'ailleurs je m'ai demander demandé euh, le dossier bi parce que euh, Ablaye Ndiaye suma mon la là. tax ma jël ma dossier bi on travaille ensemble mon maître Kan. Euh, souvent damay am dossier jox ko comme moom moom souvent aussi également mu jox may dossier yoo xam ne yi man maa koy maa euh, donc euh, j'ai en charge ce dossier là maintenant. Ramatoulaye. oui monsieur le juge. newoon nga ma jabaru monsieur Ndiaye ñëwoon na fa indil la iPhone 13 ak xaalis lu tax jëloo parce que parce que. da bëggoon naa kaa jël mais damay benn sama yaay nekk fii di wax indi ay problème vas-y réponds le juge ce que jaroon na question boobu ñu koy posé waat je pense bien que question bi posé woon nañ ko ko. maître Fall encore une fois du yow yaa may jàngal sama liggéey. Ramatoulaye tontu ma. monsieur le juge pour dire vrai man bëggoon naa jël téléphone bi xaalis bi dama bëggoon génn ci procès bi. bon d'accord baax na Ablaye Ndiaye. oui monsieur le juge. Yo, naka ngay mën a weddee lu évident.